yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. noo ngi leen di nuyu bu baax di leen jàtt di leen ndokkeel ci weeru sel wi nga xam ne ci lañ nekk. di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi nga xam yéen ak ñuy ànd ak ñun ci. taxawaay bu am solo bi nga xamante ni mu Muxaddamatul Xidma mu ngi koy taxawee ci barab bu sel bi nga xam mooy moomeelu jullit ñëpp na murit yi euh, muy jumaay euh, Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ñu ci faral di amal waxtaan yu am solo yoo xamante ni ñu ngi koy amal ci diiru weeru koor bi ñu bari di ci jëriñoo ñi teew ak ñi xam ñoo nekk ci bitti di ko topp ci euh, tasukaar xibaar yi. ñu ciy faral di feggoo nag ak kuréel yu am solo ay kilifa yoo xam ne ràññees nañ ci ci lislaam bi waaye raw na ci murit gi tey jii nag daayira bi fegoo ak kuréel bi nga xam moo tënk ñi nga xam ñooy bindkat yi di ay borom xam-xam ñu ràññee leen bu baax ñu gën a yaa yaatal lu bare bëri ci mbirum Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ak li nga xam mooy téere yu am solo yoo xamante ni mel na ni ak si toon fii euh, ci ki nga xam moo leen jiite di Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Mamadou Mountakha ñaari kuréel yu am solo yoo xam ne daje nañ fi lépp ci xam-xam la mu ñen ñi académie mi nan lañ ñu ràññee leen bu baax a baax ci xasida yu am solo yoo xam ne gis nañ ak ni ñu yaatale xam-xam bi bu baax a baax leen ni mooy kuréel bi nga xam moo tënk ñi nga xamante ni ñoo di binkat yi benn bi Serigne Cheikh euh, moom Cheikh Mamadou Mountakha moo ci wax euh, yaakaar naa ci ëttu xam-xam ngeen ñëw déglu loo xamante ni seen xol seet na ci baax seen ru génn cee dunde bu baax baax donte saa su ak waxtu ne mu ngi dund ci xam-xam ngeen ñëw nag foo xam ne seen kërug bopp la seen wàccuwaay bopp la ci kuréel boo xam ne itam yaa ak ñoom kenn ràññeet la muy daayira Muxaddamatul Xidma ngeen seetlu fi lu bare bëri am kaddu yoo bëgg a yëkkati suñu Cheikh ñu lay wax asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu. xam naa kaddu gi du gudd ndax yoo xam ne ñaari bi bokk muy académie nan ak AM association de sécurité de léegi nag man damaa bëggoon a bàyyee sama bàyyee kàddu gi rek bu dee ci bu dee ci wàllu académie euh, sëñ Moussa moom sëñ Moussa wax ci bu dee ci bu dee ci ayam tam as écrivain yi euh, sëñ sëñ Babacar Xuma mi nga xam ne moo ko jiite wax ci waaye bu dee sama moom moo damay wax sama mbégte rek ne kon ne fu mbégte àgg àgg nañ fa euh, jotaay itam mu jotaay xam-xam bi moom fu njëriñ di àgg àgg na fa waaye jotaay bii nga xam ne da ngeen koy def muy ndogu itam njariñ li moom réy na te réy te yaatu yaatu goo xam ne am na solo lool lool di suñu sëriñ di suñu lépp ne suñu diggante ak ku tedd ki muy sëriñ Mountakha euh, jox ko lépp loo xam ne mbiru xam-xam la mbiru téere mbiru mbind. xam nga loolu moom du yaakaar naa ne ci yoonu diine ak yoon wu mu ni doon sax lu am solo la euh, ñi di ko sant bu baax Mbàkke ci yoon wi nga ñu teg waaw mu ngoog ñun yoon wu leer nga ñu teg.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 ok jërëjëf euh, ko fekkee de yaakaar naa ah, ah, waaw ndogu li fokk nañ fokk nañ ci ah, de xam nga moom ñoom bàyyi loog ñoom ñoom xam nga moom ñu sant loo moom ak ñu sant si la moom waaw foog ñu kii loolu moom ñu ko waxee rek incha allah rabbi lépp dana mat ci kattanu borom bi incha allah jërëjëf lépp dina mat ci kattanu borom bi incha allah yàlla nañ ko fekkee ñun ñëpp te muur la ko incha allah ngeen yàgg fee ñëw te fekk yàgg ñu fee fekk bu baax baax sëñ sëñ xam naa da ngaa bokk ci ñaari euh, kuréel yoo xamante ni kenn mënu leen xajat la muy benn lépp ci xam-xam la ngeen fekk si ay ñooñu xam-xam euh, ginnaaw gi itam ngeen gis ne barab bi la Makka ak maddina lañ doon kii foofu moom lañuy jéem a xenju fii am na luñ ci jot def loo xamante ni njott nañ ni dinañ dem ba faw ko yooyu yëpp xëy na nga fekke ko to xam bu baax ràññee bu baax ñu ràñ ràññee la ci sa xam-xam ak sa doxalin ci dëkk bi ak itam relation bi nga am ak waa ma ñu xam ko bu baax a baax am kaddu yoo bëgg a yëkkati euh, ci turu Académie Minane waaw ñu ngi nuyu mbokki taalibi yëpp di nuyu waa Muxaddamatul Xidma yi nga xam ne ñoo ñu dalal tey ci turu académie Minane ci jiital Serigne Cheikh eh, ànd ak suñ gan yu tedd yi nga xam ne ni liggéey bi ñuy liggéey ndax ku la fekk sab tool jël ab goppam di ci ruur da ko war a jàppale ba mu yëg ne yaa ngi ci wetam te yaa ngi koy jaajëfal lool kon ñu ñu ngi leen ci sant bu baax a baax eh, Muxaddamatul Xidma nag xam nañ ne ñi ngi ci li sëriñ bi gënoon a bëgg muy xolub yoon wi muy jumaa ji ñu nekk fi di liggéey liggéey bu rafet ba yaatal ko ci yaatal goo xam ne nii euh, wax dëgg yàlla kuréel bu fi nekk rek danañ la woo ëmb la wax ne la ñoo bokk liggéey bi loolu nag lu am solo la lu am solo ci liggéey ndax lu koy dajalee la lu koy boole ca loolu euh, dañ ciy sant rek ak leen ci ñaanal euh, ci tur académie nag at mu jot lii da ngeen ko defaat kon ñun dañuy sant rek ndax nag yaakaar naa ñi ci nekk rek ñoo nekkaat ci mu Moukhaddamatoul Khidma ñoom ñëpp benn lañ ndax na ko Cheikh eh, Cheikh Mountakha doon waxee rek maanaam jumaa yi Daaru Minam sàppe la ci jumaa ju mag ji <laughs> loolu lool moo am bañ nañ ko ba sax fi mu nekk nii bala ñoo nodd fii day nodd ba noppi ñu doog a nodd bala ñoo taxal day taxal ba noppi ñu doog a taxawal kon sàppe soosu la ñuy dëgëral waaw ñii bayaan fiit bañ tàmm def ne leen nañ seet la ñuy def ca fee ñooñu nañ ko fay defee ñoom ñoo koy tànn kon nag sàppe rek la ci lii eh, kon nag bu lii ñu amee dañ leen ci jaajëfal Eh, di leen ci encore di xamal ne xam nañ ne ñun ngeen ci nekkal kon nag saa su nekk rek luñ ci yëg rek war nañ koo nekkee seen wet di sant bu baax a baax a baax eh, lii nag daanaka yaa ngi naan sax ñu faw xa wante faw xa nga leen ndax ñooñee ñan ñooy supporter seen yëf ak ñii ñan ñoo koy supporter kon kon raw ngeen leen ci lu bëree bëree bëri bëri euh, kon nag loolu moom mooy maa wax sëñ bi léegi rek naan ko sëriñ bi li ñuy wax ne amul tànk gannaaw tànk kanam la am mbir mu nekk da cay feeñ lu jéegu bu ci nekk rek buñ koy tàmbali lu mu sew sew boo xoolee da gis ñu dem ca kanam ca la ca gën lay doon ca la ca gën a tànneef lay doon kon nag loolu dañ ci woo murid yëpp rek ci lënkaloo gi nga xam ne moom ngeen initié ñu am ci déggin ba ñëpp dajaloo lépp di jenn doole joo xam dañ ko teg ci loxol sëriñ bi mu Cheikh nga xam ne moo fi toogal sëñ Touba lépp doon benn ndax boo boobaa yëkkatindoo gi dana amandoo tegandoo gi dana am ci dana am résultat bi nga xam ne moom lañ moom lañ ciy gën a bëgg dundool xam-xam la di ci sant yàlla bu baax nag ndax fi mu nekk nii mag ñi ñoo daan nam na ci dara gone yi di ci jàng wante léegi nag ñi ñuy tuddee ay ndaw ñoo nekk ca kanam kon nag nañ gën a xamaat liñ am rek ca gën koo téye ca xam ne ni kenn du ñu yokkal wante ku dugg ci ñun sax boo ma daf ñuy wàññil kon nañ téye li am ca fiir ci nag waaw nañ ci fiir nañ ci fiir bu baax a baax a baax loolu danañu dimbali ba ci kanam incha allah ñu ngi sant bu baax a baax di ñaan ci turu njaboot gi yëpp di leen sant di leen gërëm. macha allah jërëjëf euh, kaddu yi am na solo lool xanaa sëñ bi def ak ñaan rek bu defee yàgg ko baax incha allah incha